nga Ousmane euh, le président Ousmane Sonko toogul tëb rek jël cette décision là. Mhm. parce que avant ça daawoon na suñ saa yu ñu ko convoqué day répondre à la justice. mais quand soo dee répondre à la justice aussi dafa am des des des si justice ak a des lois mhm. mais état boobu aussi. Euh, dafa war a respecter aussi ces lois et ces règlements là yow d'abord en tant que citoyen état da la war sa sécurité pas comprendre aussi à chaque fois ngay dem di répondre à la justice euh, nga nekk le maire d'une ville des des des milliers de Sénégalais ou bien je peux dire des millions de Sénégalais am yaakaar si yow gëm ni ëllëg yow mën nga nekk seen njiit am aussi ñu ñu ñuy seetaan aussi des forces de l'ordre aussi ou bien por ou bien parfois même des des des gens yoo xam ne euh, on ne peut pas les identifier ñëw di dal sa kaw di attentater à mais on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes loolu la ñu wax maanaam li ma bëgg a wax mooy euh, de sa propre turpitude li ma bëgg a wax foofu mooy euh, moom moo woon nit ñi pour ñu accompagner ko maanaam insécurité boobu noonu moom moo créer les les conditions waaw xam nga aussi on est au Sénégal quand même et puis c'est pas une première Ousmane Sonko c'est pas la première la première personnalité politique à répondre à la justice avant moom am na ñeneen ñu fi jaaroon mais à chaque fois ñooñu suñu demee aussi seen seen seen seen seen am bi yi seen militants yi aussi dañuy ñëw ànd ak ñoom. donc c'est pas ñu jaay leneen il xam nga vendre la politique autrement. donc cette cette manière de faire de la politique à l'ancienne amateeful yi indi nit ñi est ci lañ ko doon xaar. mais Ousmane aussi fait partie quand des exceptions de la politique sénégalaise. justement moo tax war a il faut le reconnaître. parce que li ko yàlla may soxlawul sax moo même su wootee ak mu bañ a nit ñi dañ koy topp yàlla moo ko defal loolu mais il appartient aussi ak état bi mu ko séexal mhm. tey say su dee dem euh, répondre à la parce que ñun suñu force de l'ordre yi fi nekk yi quand même euh, ils sont assez outillés am nañu expérience mhm. justifier tey say Ousmane le président Ousmane Sonko génn di dem répondre à une convocation ñuy dal si kawam di toj ay otom di arrêter ay. mais est-ce que ça justifie ce refus répondre pour quelqu'un qui disait avoir acte que ce procès se tienne. non non y' a effectivement si les si les conditions sont réunies. non mais ay prétexte la rek les conditions sont réunies mooy lan non non non c'est pas un c'est pas un prétexte quand même au Sénégal te xam nañu. aussi lan moo ko mën a arrivé Ousmane Sonko comme l'a dit Idriss Seck bu ko gars yi fexeel du fanaan. on est au Sénégal. Mhm. te xam nañu aussi li dëkk bi li fi dox. parfois aussi suñu justice aussi y a beaucoup de à dire et à redire. Mhm. est-ce que donc aussi nit ki doo toog aussi ñuy salfaañe sa ay droit di salfaañe sa ay àq aussi nga toog di setaan da ngay défendre avec moom moyen bi ma am nit ñi. mais s'il a euh, droit de refuser d'aller à procès. non am na ci droit wala déet non non mais mais non bien sûr si les conditions ne sont pas réunies parce que aussi moom fi mu teg sa droit là c' le droit à la résistance et puis sa droit à la résistance la. su ñu la bëggee teg injustice su ñu la bëggee tegee injustice parce que aussi le euh, lu mu de façon euh, ex nihilo la justice parce que def rek dafa am des précédents. dafa am des précédents mm-hmm. mënuñu toog aussi à chaque fois ñu violer ses di violer ay àqam aussi ba pare muy dem di wuy à cette justice là et à chaque fois su cette justice là. Ah. Euh, ces ces ces ces ces droits les plus élémentaires kenn du ko respecté.